si walu lak lak parce que souvent y a yenn catastrophe y wala yenn accident yi dana am lakk yu métti yo xamantene pour nga yob ko fuñ koy faje budul hôpital principal da ngay jaxlé donc nous nak ñu war ko régler le plus rapidement possible motax projet bu melni juddu Sénégal bu jëlé en charge effectivement grand brûlé ici, le projet bi danañu am ben avancée bu am solo en matière de gestion des urgences bon nag ñu ngi euh, ñaan suñu borom pour que donc ñu war a liggéey ci projet bi yépp ñu xam ne projet la bu réew mi yépp yàkkamti pour que donc ku nekk rek sa engagement nga yóbbu ko au maximum pour que donc ñu mën a am projet bi dans les de délais. dañu gis ci caisse de dépôt que projet bii di centre de Grand Brûlé euh, dafa jàmp dafa jàmp ba pare euh, dafa am solo jàmp gi mu jàmp mooy. dañu toll ci Sénégal situation bu nga xam ne mënatuñu continuer di seetaan ay nit ñu nekk ci métitu làkk te yenn saa yi jóge ci ay régions yu sori wala sax ci biir Dakar te xamuñu fu ñuy jëm ndax d'abord xam nañ ne Sénégal am na ay hôpitaux yoo xam yu mucc ayib waaye nag mbirum làkk dafa nekk luy bette loo xam ne kenn du ko préparé ba nga xam bu la dalee te xamuloo auparavant fa nga jëm dafay doy waar ñu gis tamit ne hôpitaux yi ñu ngi góor góorlu sax ci wàllu woowu waaye des na ndax ba fii ñu toll amaguñu daal euh, centre boo xam ne loolu mooy liggéeyam dëgg dëgg dëgg ñu gis tamit ne liggéey bi am na solo ndax dana tax lii nga xam ne mooy plan Sénégal émergent te ci biir ñu wax ne Sénégal dafa war a nekk capitalu wërgu yaram ci Afrique lii dana mën a gën a ñoŋal loolu ndax besoin bi besoin Sénégal la waaye besoin Afrique de l'Ouest yëpp la te ku nekk xam na jële fii ku lakk di ko yóbbu tugal euh, laaj na koom-koom bu bëri pour waa Sénégal laaj na ko tamit pour waa sous-région bi kon nag projet bi nekk na lu am solo ci wàllu woowu ñu kontaan nag lool di liggéey ak monsieur le ministre di ko sant ci kóolute gim ñu wóolu waaye nag am cawarte liggéey si ndax ñii nga xam ne ñoom ñoo koy accompagner muy waa Lions Club ci wàllu délai mënuñ ci avancer lool waaye engagé wu nañ ne protocole d'accord bii ñu signé fi ak ñetti weer danañ mën a yegsi ci contrat suñu signé contrat bu soobee yàlla liggéey bi nga xam ne mooy wàllu bâtiment bi gannaaw ma ñu signé contrat ci fukki weer ak ñaar ñun mun nañ assurer ne dinañ ko mën a réaliser